dañuy fal conseil bi conseil bi daje seen biir daal fal maire bi lii de mooy résultat jalagu Macky Sall yi ma wax nag nii Macky Sall dafa jàpp ni pour mu dialogue ak nit faw rekk mu téye la ba pare dafa am loo xam ne gor mënu koo nangu dama lay jekku téye la neel nag ñëwal ñëwal ma ñëwal négocier soo ñëwul sa yaay aye bu yàkkee may la xooñ mooy wax Macky Sall ni ñun de suñu yaay mooy la peuple sénégalais suñ ñun suñu yaay mooy la peuple sénégalais te am na lu ëpp xooñ dafa am wax joo xam ne sax du waxu kilifa en réalité mais jàpp na ne ci géewu politique bi opposition bi surtout am na ñoo xam ne seen problème yépp mooy parrainage ndax parrainage du métti la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 menuisier keneen ak keneen nitu daara yi doomu daara yi yow mii di transporteur chauffeur yow mi nekk ci napp gi yow mi di jàngalekat yéen ñëpp maa ngi leen di woo maa ngi woo it ndax bërëb boo dem am na ñoo xam ne tey ay gor lañu ba léegi te gëm naa ni ñoo ëpp moo xam ci magistrat nga bokk wala haut fonctionnaire nga wala ci alkaati yi nga bokk force de défense et de sécurité yi wala ci syndicat nga bokk wala kilifa diine nga doon ak ku munti doon waaye surtout maa ngi leen di woo yéen ndawu Sénégal yéen ndawu Sénégal yéen ndawu Sénégal li fi des bëreetul yàgg nañoo ànd di dox li fi des bëreetul pour ñu moomaat suñu réew defar ko kon bu ñu nangu kenn jaay ñu doole ba yàq loolu tubaab dafa ne souveraineté bi peuple moo ko yor mooy sañ-sañ dëgg-dëgg ak mën-mën ci réew askan wee ko moo tax saa su ñu nee ñoom force restera à ndaw ñu ne leen force restera au peuple parce que la loi c'est la loi du peuple kon maa ngi leen di ñaan ngeen taxaw tembe ngeen taxaw jonn defe naa loolu El Malick boobu moo gën a kii ngeen taxaw daa di takkaat ndigg yi léeg-léeg gis nga sooy xeex ngir dëgg boo demee ba gën a jege objectif bi foofu la mbir mi di niroog lu gën a métti fekk boo xuusaatee tuuti rek yegg yàlla mooy doxalee mbiram noonu waaye boo découragé bàyyi sa loxo rek fekk yow presque yeggoon nga lépp lu ngeen doon def benn nañ ko def juróom tey